dal leen ak jàmm am internet Desa TV nuyu nañu leen dañuy daal di ànd ak yéen jukkil leen xibaar yi fi jot a rusee ci bëccëgub tey jile adoré ko activiste bi di Cheikh Omar Diagne bind na ab bataaxal jagleel ko compatriote ci ginnaaw bi nga xamante ni moom milee ak beneenub activiste di wuyu tutu Karim Gueye xum xaak dañ leen tegoon loxo ne rek dañoo yëkkati ay tuuma ateg ko ci nguurub Sénégal ci fàttub Imam Badara Ndaw loolee yóbbee loon nag ñu daat leen teg loxo jëmale ci toll ni moom la di Cheikh Omar Diagne yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci réew mi ak anam ba muy daal di doxee moom mi leen nag ma ngay daal di tàmbali di ñaanal li nga xamante ni rek mooy réew réewum Sénégal jàmm sax fi waaye ma ngay daal ñaawlu anam bi nga xamante ni moom la nguurub Sénégal daal di yoree réew mi teg ci di xam la ni rek rapport bi nga xamante génn na jëm ci li ñu yoree woon fond covid 19 bi am moom ma ngay daal lu di ak ay koppar moom mi la sax ma ngay xam le ni yéen ci kuréel yi nga xamante ni ñu ci mel ni OFNAC IGE IGF ak yeneen i kuréel saa su nekk dañu doon génn ay rapport yi nga xamante ni rek dafay épinglé ñenn ci ay jege ñaale Macky lu ñu ne nag waaye euh, mu mel ni rek su loolee génnee foofu lay lépp doxee tàbbi géej ndax nag kenn du ci yëy yàbbi ba tax na ma ngay daal di woo askanu Sénégal yëpp ñu daal di génn taxaw temm ngir rek koppar yi nga xamante ni luubal nañ ko lu jëm ci Covid 19 bi ñu daal di rek xam fan la daal di féetee ba tax na ma daal di woo askanu Sénégal yëpp ñu daal di wàcc ci terrain bi ngir rek mën a ñaalu tey dénoncé li nga xamante ni rek mooy luubal gi nga xamante ni nguurub Sénégal mi ngi koy daal di def waaye moom mi la mu daal di jeexalee bataaxalam rek mooy ni rek lu jëm ci troisième mandat nekk na loo nga xamante xamante ni rek constitution bi daf koy daal di aaye ñu àddu wax ci leneen Mariam Soda Ndiaye daal di nay jógee ca coalition Osez l'Avenir et Aar Sénégal moom mi leen nag mu nekkoon la député bi gënoon a ndaw ci treizième législature bi ginnaaw loolee nag moom mi leen daal di nay fësal ci page Facebook am ne rek daal di nay génn ci coalition Aar Sénégal moom mi leen nag ma ngay daal di xibaar li nga xamante ni rek mooy opinion bi ne rek daal di nay jógee ci mouvement Osez l'Avenir et la coalition alternative pour une assemblée de rupture Aar Sénégal ñaak état wam ma ngay daal di gën a doy waax ci biir loolee nag moom journaliste d'investigation bi lee yëkkati na ay kàddu ma ngay daal di xam ne ne jamono ji ñu toll nii dafay daal di sàkku faj gañ koy faj ci hôpital principal daqal ko ndax nag loolee neexu ko benn yoon ba tax na ma ngay daal di sàkku ñu bàyyi ko te it ñu ko ca mu nekkoon te li nga xamante ni mooy faj bi moom le nag ma ngay xam ne ni la mu ngànkoon moom lay daal di wax ba tey rek maanaam du dellu ginnaaw ci grève de la faim bi nga xamante ni mu ngi koy daal di amal ba tax na moom mi le ma ngay daal di sàkku ci ay avocat ak ñenn ci médecin yu koy suivre ñu daqal bi xamante ni rek ñu ngi koy daal di fecc ci loolee nag moom li di Pape Alé Niang ma ngay daal di xam ne ni du dellu ginnaaw ci décision yu mu jëloon ba tax na ma ngay daal di rek xamal état wu Sénégal su leen neexee sax mën nañu ko daal di gasal bàmmeel ca prison bu Sébikotane ba tax na jamono juñ toll nii nag ñi di waa coordination des associations de presse kap taxaw nañu temm ngir rek daal di mën a défendre lu jëm ci àkkam ak yelleef te it nag ñu daal di koy mën a libéré ca kaso ba ca anam ba mu daal di gën a gaawee journée nationale de l'élevage maanaam journée bu ñu daal di rek jagleel lu jëm ci wàllum sàmmkat yi ci biir loolee président Macky Sall dem ma nga woon ca diwaanu Tambacounda ngir rek mën a daal di célébrer lu jëm ci huitième édition journée nationale de l' élevage ci biir loolee nag njiitu réewum Sénégal jël na ay kàddu di gërëm ñenn ci ñi nga xamante ni ñooy dëkk dëkkaan yi nga xamante ni teewoon nañ ni ki dem bu foofu ca Tambacounda ngir mën a célébrer lu jëm ci journée nationale de l' élevage ku ci mel ni Guinée Bissau Mali Mauritanie ak yeneen i dëkk xamante ni teewoon nañu fa ci biir loolee njiitu réewum Sénégal ngi leen daal di gërëm te it nag yëkkati na ay kàddu jëmale bi wax na rek jamono ji ñu tollu nii Tamba Tambacounda bokk na ci dëkk yi nga xamante ni dafay doxal mbirum sàmm ba tax na moo waral ñu daal di koy rek choisir ngir amale foofu lu jëm ci journée nationale de l'élevage ñu àddu wax ci leneen nag ginnaaw ba ñu ko daal di tabbee mu nekk ca boppu OFNAC moom mi la di Serigne Bassirou Gueye ah, niki démb nag la doon amal prestation de serment a ah, ci biir loolee nag ma ngay daal di xam la ni moom mi la dina def kéem kattan ba daal di xeex lépp li nga xamante dafa daal di jëm ci corruption ak fraude ba tax na moom mi la di Serigne Bassirou Gueye ma ngay daal di xam la ni lu nu fexe ba mu daal di jeex ci Sénégal te it yoon dina ci daal di def kéem kàttanam ñu àddu wax ci leneen lu ñeel coowal Adji Sarr Ousmane Sonko jamono juñ toll nii coow laa ngay wéy ba tey féministe bi di wuyoo ci tuuru Penda Mbaw moom mi leen nag yëkkati na ay kàddu di xam na ni rek c'est la première fois fii ci Sénégal jigéen nekk instrument bi nga xamante ni dañu koy manipuler par ay politiciens ba tax na moom mi leen nak ma ngay daal di rek jox dëgg leaderu Pastef bi le moom nag ma ngay daal di xam le ni kii di Adji Sarr dañu koy daal di manipuler di ko def loolu ko neex loolee nag moom mi leen di Penda moom ma tuuma ak gouvernement wu Sénégal ci sport la ñu di wax ginnaaw nag nakal bu tiis ba ñu daal di xëyee ni ki démb kii di Roi Pelé moom nag daal nay ñàkk bakkanam ni ki démb ginnaaw bi nga xamante ni nag amoon na lu toll ci quatre-vingt-deux ans moom mi leen nag feebar bu yàgg moo ko dërëroon ni ki démb nag moom mi leen di roi wu football bi lee daal di nay génn àdduna lu soxol mbirum people ki ñu naan Vigie moom mi leen nag nekk phénomène ci musique sénégalaise nag dañu daal di annulé boobu lay concert a ñu dakkal boobu lay concert mooy ni nag sécurité moo fa amul gën a doon xëm daanu loolee nag dalu woon xel ba tax ne stafam daal décidé rek arrêté boobu lay concert waaye ñii di ay fansam nag meex nañ ba futtu tey di xam ni rek dañu daal jënd seen ay ticket lu toll ci cinq mille wala sax ngir rek mën a dem seetaani ci seen star boobule waaye nag ba ñu àggee ci boobu lay concert xii ñetti son dong la def ko ci espace yi gën a màgg maanaam stade Abdoulaye Wade bu ah, Diamniadio lu jëm ci conseil de casserole bi nga xamante ñenn ci kujje politique bi ñu ko fas yéenee amal niki 31 décembre bi ñu jëm ci biir loolee nag waa forum du justiciable ñoom ñi leen nag ñu ngay daal di sàkku ci waa Yewwi Askan Wi ñu rapporté lu ñu ndax nag jàpp na ni lii di 31 ki di njiitu réewum Sénégal président Macky Sall dafay amal discours à la nation ba tax na sabotage jëmale ci discours président Macky Sall boobulee ba tey ci biir xibaar yi kii di Babacar ak ay camaradam ñoom ñi leen nag ña ngay daal di rek sàkku ñu daal di rek lu ni mel wala sax ñu daal di koy reporter ba beneen yoon amee internet di 2S TV lii moo nekk xibaar yi gën a bi leen di leen wax ngeen way dañu topp seen site d'information bi di 2S TV abonné bés cloche te notification bi ngir ngeen di mën a am suñu vidéo ci daar daar gi di leen ñaanal ci leen jox dig dajee ba